waaw bu ñu ko signé woon. nga war a signé nañ ko. non non waxuma non waxuma loolu de. Uh-huh. non dama ni. Uh-huh. dama ni sa compteur yi. ak yi waaw su fekkonte ni jël nañ ko. waaw est-ce que tey di nga fi nekk di euh, nekk candidat à la présidentielle. waaw léegi xam nga dama la tontu dama commencé tontu nga ne ma non non non mais heureusement que li ma wax nii am na firnde en 2019 mooy 2019 booba fekk coowul contrat bi génnul et cetera ñu ngi ma invité woon à Paris. en décembre 2019 su ma juumulee c'était décembre ou chose comme ça benn kuréel bu ma bokkoon temps ma doon jàngee France bu tudd espace Diapo boo xamante ne dafay dajale ay doomi Sénégal yoo xamante ne fa lañ nekk de temps en temps deux fois par an ñu toog waxtaanee lu jëm ci euh, Sénégal ak lu jëm ci lu jëmale sénégalais kanam et cetera ak Afrique sax de manière générale yàlla defoon ñu invité woon ma ci parce que bokkoon naa ci ñëwaatoon Séné ñëwaat Sénégal di fi liggéey ñu bëggoon ma ñëw témoigner ñibbisi bi nga ñibbi si Sénégal ak taxawal këru liggéeykaay bi nga taxawal Sénégal nu noo ko dundee ak lan moo ko sabab et yàlla xam ne li ma lay wax nii Pape ay seede am na ñëpp a ngi woon ci saal bi ma taxaw ne leen li tax man ma ñibbi Sénégal mooy dama bëgg bokk ci ñi nga xamante ne dañuy defar Sénégal te loolu ci politique laa ko fas yéene jaare sama ambition même rek c'est-à-dire on m'a posé question dam ñu laaj dañu laaj bu laaj bu leer lañ ma laaj maanaam lan moo tax ñibbi Sénégal ba taxawal sa këru liggéeykaay bi man leen li tax ma ñibbi Sénégal mooy dama am yéene bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite ji Sénégal am naa sax yéene man ci sama bopp yàlla def bés ma jiite réewum Sénégal en tant que président de la République et ba ma waxee loolu man leen li sabab nag ma jaar ci këru liggéeykaay d'abord ba pare mooy maa ngi la doon wax sama jaar-jaar nga bëgg ma ko xeebal mais garaawul sama jaar-jaar social bi ma am fi ma jaar ci àdduna ci wàllu métit ak wàllu coono ak tout ce ndool bi nga xamante ne jot nañ koo dund ak sama yaay précisément. mais loolu loolu loolu loolu moo tax. amul loolu laa wax nii la loolu loolu lu ko ma la loolu lu loolu loolu. waaw d'accord lu ko ma la mais